الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتبارك الحركات وتضعف الحسنات ثم الصلاة بأكملها مع السلام بأتمه على أشرف وأكمل رسله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مبكي جلد يتدي نكتي yi فسنتي ci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 mu gën a tedd gën a sell gën sakkan ma tibbee ko ci sama xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi di dellusiwaat ci kartanal yàlla fas yéene sof ak yéen li ma sosoon ak yéen rek ki seen xadiisu sabaax sof gi nag tey dafay sosu ci yaa ayuha ji nga xam ne moo ci tegu nekk ci suratu tawba tolloog aayaab ñaar fukk ak juróom ñett yàlla di ci wax tolloog juróom fukkeeli hooteeb yàlla ak benn sama borom ne yaa ayuha alladina amanu innama almushrikuuna najasun fala yaqrabu almasjid alxarama bacda caamihim hada wa in xiftum caylatan fa sawfa yugnikum allahu min fadlih inchaa inna allaha alimun hakim tawba aya 28 sama borom ne hee eh, yéen ñi gëm yàlla fas ko ci seeni xol wax ko ci seen làmmeñ fas yéene jëfee ko ci seeni cër ñu ne ko la bayka mu ne li ma leen xamal de lu gàtt la mooy innamal mushrikuuna najasun mooy bokkaalekatu yàlla yépp nga xam ne diine wuñ diineey lislaam jëluñ sayiduna muhammad muy seen kilifa sallallahu alayhi wa sobe lañ sobe ga nag boroom xam-xam yu wuute ci ñi ne sobe gi sobeeg jëmm la ñii ne sobe gi sobeeg maanaa la sobe gi sobeeg maanaa la loolu la ibnu abbas gëm sobe gi sobeeg maanaa la lool la a Malik ni ñu tënku ci ngiram gëm sobe gi sobeeg maanaa la a Xasan Basri yu loolu la gëm lu bari tamit beneen xaaj ba ci boroom xam-xam yi ne sobe gi sobeeg matière la seen jëmm yi ci boppam mooy sobe ba bu riisoog ñoom ci sa bi yére war ngaa dem nga fóoti ko boo riisoog ñoom ci sa jëmm war ngaa dem nga raxas place booba nga riisoog ñoom bala ngaa saña euh, julli loolu ku mel ni imaamu Shaafi'i yu loolu la gëm waaye daal yàlla nee na yéeféer yi lañ baatab najasu nag baat la boo xam ne góor ak jigéen a ca xem mufrad ak jamxu musanna ñoo ca xem moo tax rajulun najasun imraatun najasun imraataani najasun rajulaani najasun rijaalun najasun waaye almuslimaatu najasun ñëpp a ci am muzakkar ma ak mu annas ma mufrad ma ak musanna ja ak jamoo ja yëpp najasun la najasul ji nag moo ëpp balaaxa yàlla waxut ne xéeféer yi boroomi sobe lañ fekkoon dafa ne innamal mushrikuuna ñu ne ah mu ne zu najasin boroomi sobe lañ waaye dafa ne najasun wax jooju moo ëpp balaaxa téeméeri junne yoon muy innamal mushrikuuna najasun moo ëpp balaaxa innamal mushrikuuna zu najasin kon bu ne najasun rek dafa bëgg a ware ne sobe lañ ki seen jëmm sobe lañ ci seeni yaram loolu mu baalaxa la gu jéggi dayoo ci melal leen ci sobe mu des nag borom xam-xam ya wax naa la niñ xuutee ca ñu ne ak ah kay sobe lañ de ki seeni jëmm ku xett xiram gàtt xel sab ko di ko jaamu baxi fi yàlla mi bind mbindee fi waaye waaye kooka sobe ga bayi fi afa man yaxluqu kaman laa kaman laa yaxluqu shay'an no nu mën a amee bàyyi fi ki bind koo dem di topp koo xam ne mënta bind dara la gën a kéemaanu xam na ki ñoom ñu gàtt xel ci ñoom ne yàlla mii sax dañ koo créé yàlla mii dañ ko fee indi xam nga ne loola dof mënu koo paase moo tax yàllaa ngi ne ataabuduuna maa tanxituuna wallahu xalaqakum wa maa taamaluuna seeti ko ca suratu saafaat aya 95 jemba aya 96 way way nak ngeen jaamu lo xamne yene ko hettal sen bop amna ci ko xamne sa sax dafa xettoon xërëmam gi mu dem ba ci yoon mu yore ett ko ci melaw mburu na ci la ko liggeye mu dem ba ci yoon xif dagg ca di lek xam nga dof mënu ko passer ak reer motax yalla musa ba mu rombee niti firawna ya ñi sax di jaamu seen xiram ya ca la wax ñi ñaan ko ijaal lana ilahan kama lahum alihatun Moussa ne daal neexul ba neexul mais innakum qawmun tajhaluuna yéen daal ay nit ñu sànku ngeen ñu dof ñi sampi xiram di ko jaamu ngeen naan naa leen wutal xiram yu ngeen di jaamu comme ñoom kenn gënu leen a dof demel nga seeti ko ca suratul Araaf aya 138 يالا وخان نبا تاي دي لين دوفلو رك ني اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب ني ني يالا نكا لنج كو مانا ديفه بن يالا نون نيغي خام يالا يودول جيخ جيروم بن فك يالا لو تك سوني سوخلا يي مانول فاجو يالا جوني اك سوخلاي بوبام لنج كو غاتشي دارا فاجو حوتي يين كي سين بوب نا نين بغ على كل حال ني ني خام جن يالا كون سوني سوخلا يي نوني فاجو yalla ne da ngay na sanku wallahi bu ngeen amoon jenn yalla mi nga xamne ne bah ko dénk ci lu bax mu dencal lako lo soxla be ko ko ñaanee mu may lako doyna doy jeru seti dara waye bu ngeen fi di wuti ay yalla da ngeen melni rek kenn nit ku am ñuko nyar ñaar ñaar ñuko bokkati te ñepp ñaar ñaaw jiko ko wala mu xam ñuko bokkati ci ñu bari diko xëccio xam nga ne man taxe mak kenn ko xamne kenn ko mom bu ne ko mu xey bu ne ko waccel mu wacci waaye bu lañ ay nit bokkaalee ñu bari bokkaate la ah bu ñu ne la xëyil nga ne ko damay xëy ñu ne déere xëy ñi ne taxawal ñi ne toogal ñi ne tëddal ñi ne nelawal problème am moo tax yàlla ne daraballahu masalan rajulan fihi suraka wa mutashakisuuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyaani masalan alhamdulilahi bal aktharuhum laa yaalamuuna kon ñii kenn gënu leen a dofe kon yàlla ngóog ak ci mën a jàngaleem wane ne xéeféer yi sobe lañ sobehu gi ñii ne ca jëmm ya ñii ne sobehu gi ca maanaa rekk la waxoon naa la li ci imaamu Malik gëm waxoon naa la xasan al basriyu lam gëm waxoon naa la tabaarakallaahu imaamu Shaafiiyu ak nam ko gisee waaye jullit mooy ki laab jullit ndeysaanam léppam a laab léppam a laab mu nekk ku mucc ci sobe moo tax gis nga jullit bi laab moo sañ dugg jàkka waaye xéeféer yi nga xam ne ay sobe lañ amuñ droit di dugg suñ jàkka yi lu dul daruriyatu moo tax yàlla tofas ne falaa yaqrabul masjid al xaraama baada aamihim hada imaam Aliyu moo jàngoon lii keroog ca eh, Kaaba ga ne gannaaw ren daal bu kenn ci yéen duggati ci Kaaba gi di ko wër bu kenn ci yéen di duggati ci jàkka ji waaye ñu ne masjidul xaraam na muñ ci masjidul xaraam rek waaye mbooleem jàkka jàkka yi ak jumaa yi ab xéeféer amul droit di ca dugg lu dul daruriyatu daruriyatu ba nag mooy bu dem demoon di liggéey jàkka ji xéeféer bi moo dàq liggéey jullit bi su boobaa dana dagan yéeféer bi ñi bàyyi ko mu gañe sànce ba jox ko ko mu di ko liggéey mais ni mu ko manee bu ko ko ab julit manee julit bi lañ koy jox waaye su fekkee ne moo ko ko dàq ca rafetal ga garante ga dana am ak loru dana dagan mu dugg ca jàkka ja di ko liggéey ndax ak daruraat tubixul maxduraat kon ñoom sobee lañ waruñoo dugg jàkka di ko tilimal waaye ki gëm yàlla di jullit mooy ki laabal bakkanam mu set wecc moo tax avant muy dugg ci jàkka dafa laabalaat bakkanam ci bàkkaar yim doon fàggu mu tàmbalee ko njàpp bu fekkee dafa laajoon sangu janaba mu sangu janaba ba teqali ko sobe sa su laajut sangu janaba cëram yim ko fàggoo yëpp mu raxas ko ba bàkkaar ba mujj wadd fekkee bàkkaar la bu mu laaloon ci loxoom mu raxas loxo yi ñetti yoon bàkkaar ba wadd ànd ndox ma bu dee lu mu lekkoon ci gémmiñam mu galax ndiku sotti ko mu wàcc ànd ak ndox ma bu dee lu mu fóonoon ci bakkanam bu fiiroo rek sorox ndox ma wàcc ànd ak bàkkaar ba ànd ak ndox ma bu dee lu xooloon ci bëtam bu sëlmoo rek loola wàcc ànd ndox ma naka noonu mu raxas ay loxoom ba ca conc ya lu mu ca defoon dimbali ko ci loxo ya bàkkaar ba ànd wàcce ànd ak ndox ma mu masaa bopp lu mu tiimoon lu tiimuwut mu wàcce ànd ak ndox ma mu koro koro lu mu déggoon lu dégguwut mu wàcce ànd ma mu jël tànkam yi lum ca doxoon lu doxuwut ba mu ko raxasee mu wàcc ànd ak ndox ma lii lañ bëgg nga préparer ko bala ngaa dugg ci jàkkaay yàlla yi nga xam ne sa cër yépp set na wecc ci ay bàkkaar gannaaw ba mu setee wecc ci sobe nga doora nag jéeguhu jëm ca jàkka ja yonentu bi ba ngay jéeguhu sallallahu alayhi amul benn jéeguhu booy jéeguhu lu dul danañ la ko bindal payoor hiw jàllal bi ko sippal la ci ay ñaawteef yëkkati la say daraja yaag moom yaag moom ba ba ngay duggee ca jàkka ja du ko defee nag nga doora dugg nag mel ni ku gane ji yàlla ci ab saalam mel ni ku gane ji yàlla ci ab bat ci ab këram tabaarakallaahu gim askane boppam ne adduna bi yëpp samay bagage la waaye ñaari bagage laa ci bagage oo mooy kitaaballah di sama téere bi ak laa yi ci des yëpp maa ko moom mais moomu li ma ko sama bopp jël leen oo ma ci soxla ba nga fay wàccee rek ñu bindal la payooru kuy julli feek ba ba ñuy taxawalee julli ga nga julli xaat toog ñu lay bindal yoola kuy julli feek ba ngay génnee jàkka ja te jamono ji nga fa nekk li nga fa toog lépp nox yi nga fa nox promotion la duñ ko boole ci sa dund gi loolu xam nga ne kenn du yàlla moo tax gana ji yàlla hóor yéen ñi may déglu seen xam-xam màcc ci basket ñii seen xam-xam màcc ci football ba ji sax bëri léeg-léeg nga gis temps bi dem waaye euh, arbitre bi dafay mujj boole ko montor ba ni lii bokkul ci temps bi ñu war a bëri bokkul ci temps bi ñu war a basket bokkuñ ci temps bi ñu war a football kon bu ñu la calculer sa dund bi juróom-ñetti fukki at ala kulli haal loola mi euh, waxtu ya nga ca def ci biir jàkka ja du bokk ci juróom-ñetti fukki at ya bu ñaar lay doon dañuy téye foofa heure bi fekk ba ngay génne waaye boo ne fi kon nag naa dem far dëgg ca jàkka ja kon dootuma dee ci déedéet di na fekk ba ngay dem ca jàkka ja la fa tax a dem mu nekk taxawal julli yonentu mësta bëgg a gis kenn ci saxaaba yi muy dugg ci jàkk ci du waxtu wuñ fay war a taxawal julleeg yàlla moo tax ba mu gisee aba aba umama mu daw dugg ci jàkka ji yonent bi ne ko waaw yow looy ñëw ci jàkka ji ci waxtu wi te du waxtu wi fi daan ñëw mu ne ko ay borom a dàqe ca la ko wax génnal dem liggéey sa ko ay baat ne ko boo ko jàngee yàlla dina la dimbale ci sa bor yooyu nga mën koo fay mais jàkka gi du làqatu waayu borom bor yi kon looloo waral mu ne falaa yaqrabul masjid al xaraama baada aamihim hada yàlla nag daane aaye ji wala ayaat yii de lu ama am solo ne xéeféer yii ma jay leen jox leen koom-koom léegi-léegi leen daan dimbale seen koom-koom yi en tant que ay mbokk ngeen ci deret bu dagg leen relation bi su ngeen ragalee ñàkk yàllaa leen i xoomal fañ leen féete woon man yàlla maa leen ko ca féete woon ñu nekk seeni mbaam yu ngeen di war ñu fa neexatut danaa leen xuutu man ma nekk fa dafa ma nekk moo gën a xóor ku gëmut yàlla fa mu ne kon wa in xiftum aylatan fa sawfa yuxnikum allahu min fadli insha nag wallahi yàlla xoolal ni muy daane aaya ji mu ne inna allaha alimun hakim man yàlla mi wax leen lii xamaa kon laa li ci sama kanam xam naa ko te ngeen xamu leen ko waaye ku xereña laa du ma teg mbir lu dul fu dëkk kon lii ma def wax leen ko nekk leen ci rek genn lor du leen ko jural kon ayaat yaa di wax loolu tabaarakallaahu ci nekk yéeféer yi di jëmmi sobe buy dox ci kaw suuf yéeféer yi mënuñoon na ñàkk nekk sobe ndax koo xamee ne ni yaa ngi lekk mbaam xuux muy sobe bu la neexee lekk médd bu naan sàngara mi sobe ak yeneen ak yeneen mënoo ñàkk a nekk sobe loolu wax na ko boole kook sa pas-pas bu bon bi ngay bokkaale yàlla di ko askanee yeneen yu kenn xamut dinaan yàlla xam na ay doom jigéen muy malaaka yi wa yajaalullaahi l banaat subhaanahu wa lahum maa wax ju bon jooju kenn mënu koo ñàkk nekk te nekkuloo sobe moo tax yàlla wax ci hadisul qudsi yu ne ibnu aadama dafa ma saaga yastumuni ibnu aadama wa maa yambaqi lahu an yastumani wa yukadibuni wa maa yambaqi lahu moom de doom aadama ji saaga na ma man yàlla kon kuñ saagaati muñal doomu aadama ji narloo na ma man yàlla kon kuñ narlooti muñal ñu laaj ko ne ko wa maa satmuhu lan mooy saagaak doomu aadama ci yow yàlla mu ne wax na ne ah fa qawluhu inna lii waladan wa amma takdibuhu fa qawluhu laysa yuidu nii kama bada a nii narloo gi ma narloo mooy weddi gi mu ne bu dee yi xam ye fënëx duma ko mën a delloo xaat na meloon narloo na ma taman ma wax ko ñaareel bi tamit fe eh, saaga gi ma saaga mooy askane gi may askane dama am doom yàlla lu koy wax lépp xam dooma ko ci metti ndax saa yoo saxalee na yàlla xam na doom rek ray nga yàlla kon kuy dee saa yoo saxalee na yàlla am na doom rek nangu nga ne yàlla ku lottu la dom ñaar rek lañ koy defé kuy dé ak ku lottu ño soxla dom waye ku ku lottu a do dé lo dé doom ndax lu waral yow mi dé bëgg dom da nga bëgg procès yi nga sembon so dé rek sa dom ñëw mën ko motali sa ngir te du lu dagati ci kaw suuf motax nit ñi bëgg njabot waaw ki mom lepp lu muy déxé lola ñaareel mi tamit doom da koy bëgg yow mi lot boo mënatul mu mënal la di la jàppale waaw ki man lépp na inna la ala kulli shay'in qadir lu muy wutee doom ku ko jàppale moo tax mbooleem li ñuy askanee yàlla askane na yàlla am na doom moo ko ci gën a métti moo tax mu ne waqaalu taxasa rahmaanu waladan laqad jitum shay'an iddan takaadu samaawaatu yatafattarna minhu wa tanshaqu l ardu wa taxiru l jibaalu hëddan lan mu ne ani daaw li rahmaani wala dan ak a yàlla kon nañ bàyyi wax ju bon jooju di askane yàlla doom yàlla saa yoo ko askanee doom rek nangu nga ne dafay dee ndax kuy dee moo doom saa yoo askanee yàlla doom nangu nga ne yàlla ku lottu kuy lottu comme ñun ñàkk solo sa dund ñu limité ko yaa soxla doom mais ku dundam amul limite mais mooy limité dund yi ku kartanam amul limite waaye borom kartan yi mooy limité seen kartan lu muy dee doom tous moo tax kon borom pas-pas yu bon yooyu yàlla ne sobe lañ innamal musrikuuna najasun borom xam-xam yi ne ah xéeféer yi seen sobe ga ñii ne sobe maanaa la ñii ne sobe gi sobe ak màddiyatu la. ñu jàpp ne seen sobe ga seen jëmm ya moo nekk sobe aa ci wax jooju tabaarakallaahu ba tax seen jëmm yi buñ la laalee aa da ngay jàpp ne sobe la laal demal nga raxasi ko bu ñu laalee sa yére bi demal nga fóot ko boo xamut fi ko laal demal nga fóot lépp soo xamee fam ne place ba rek nga dem fóot ko ñi gëm loolu ibnu abbas loolu la wax dafa ne ayaanuhum na gisatun kal kilaabi wal qanaasiri seen jëmm ya dafa nekk di sobe comme xaj yi ak mbaam xuux yi loolu la ibnu abbas gëm xasan basri loolu la gëm ba wax na ne man saafaxa mushrikan a tawada képp koo xam ne ab mushrik da ko jox loxo yow demal nga jàppi demal nga jàppi loolu la gëm moom mu ne laal nu yëpp xéeféer ku gëmul yàlla nga def ak moom saafaxa dafay toj jàpp demal nga jàppi loolu la maanaam xasan al yu gëm imaamu malik liñ solo ca moom jëlee ko ca hadi qasum ak nasir mu tukkee ko ci aimatul itra ñoom tamit dañoo tegtaloo ne ñi wax ne xéeféer yi sobe lañ wax nañ dëgg fiñ ko sukkandikoo mooy hadisu yonantu bi abi hurayra ta génn génnee lu ko waral yonantu dafa amoon benn jullit bu xamee sobe yore janaba sangoo gut ba mu ñëwee nag mu siba nuyu yonantu bi ci loxoom jàpp na yaramam yëpp sobe la yonantu bi ne ko waaw yow lu tere nga nuyu ma mu ne ko man de damaa amee sobe ndax te sangoo guma moo tax mënu ma laa nuyu yonantu bi ne ko subhanallah innal muslima la yanjusu waaye tudd naa seetlu ak yàlla ab jullit du sobeeku kon nag jullit bu duhut wu ca jëmmam ja waaye kon kay safaanab jullit mooy xéeféer kon sobe la demal nga seeti ko Buxaari yu moo ko indi ci buntab sangum ba yaa ngi koy fekk ca buntab ñaar fukk ak ñett jëm ba ñaar fukk ak ñeent ci ngay fekk maanaam hadis boobu kon ñooñu lañ tegtaloo ne jëmmi xéeféer sobe la boo boo jonjanteeg moom sa njàpp li yàqu na loolu lañ gëm ñoom de Xasanal Basri loolu mooy ngiram bu bu la joxee loxo sa njàpp li yàqu na. bu laalee sa yëri yi demal nga euh, fóot place booba bu laalee sa jëmm gi demal nga raxasi foofa loolu lañ gëm ñenn ñene déeréet sobeeku gi matière la matière ga tax dañuy digal bu boo xamee ne ni ëhlu kitaab laal na sa ndab wala mu lekk ca ah bala nga caa lek a lekk demal nga raxasi ko yonentu bi digle na ndax yonentu bi digle na amara bi ghasli aniyati ahlil kitaab wal akli fiha in lam yujad xayruha comme nim ñëwee wa fi saxiixayni min xadiisi abi Saalabata wa qad bayyana abu daawuda illatahu wa huwa qawluhu innahum yakuluuna laxma alxinsiri wa yashribuuna alxamra wa yakuluuna ah su ko defee loolu la la gëm ñu ne xéeféer yi dañoo sobeeku sobeeku ak matière ba tax na ñoom bo jëndon ndabal ahlul kitab ab yahut ak nasaran bala nga saña def lek ci ndab la wala nga cey def ndox di sango mba nga koy jappé demal nga raxasi ndab la motax feug jaay yi tubab yi di sol di jëlé France yi Angleterre yi amerique yow julit bi bul ko jënd rek sol ko demal nga fot ko fotam labal ko dor ko saña sol na sen tuba yoya ndax hur ba xam sobe sanga ca hutal ndox mo xam ne xet ga caf nga ga couleur ba dara soppeeku wut ca nga jël yére feug ja yoy yep bu ca xajee ndor nga nak ko ca fete leen tuuri ndox moma dora andi ma ndox nak dor ko fot fotu sabu su fekke da nga def yulug ba xaju ca gannaaw bi nga toural lola hat ba hat ndox mu dora ñulugat a dor ca yenen yëre ya ca des noonu la ñuy fóotee yëre yu am sobe waaye bu fekkee da dugal génnee ba pare dugalaat ya njëkk a génn rek moo laab ya ca teguwaat yëpp ndox muy nga dugal leen sobel na leen kon yéen fotkat yi di leen bàyyi xel ni boon yi di fóotee seen yére yi ngeen di ko xam ndax man caa julli boo jëlee boon bala nga ko fóotloo woon ko ndax man naa xam ni ñuy fóotee te mooy génneen indi ndox mu sell yere yep nga duggal ko ca fete len nak len bañ pare di fete par ben ba yëpp nga wañ touri ndox mooma dora andi beneen ndox dem yere jeexna na su yere jeexu timin nga at beneen ndox nak dor ca eh, duggalat yenen yere ya deson buñ paree ba yëpp toy nak nga xam foot nga len ci fete door nak andi beneen ndox mo xam ci gay dora a def sabu, ak kotol bek a eh, omo bek door koo fóot fóot moo xam ne setal la fóot bu njëkk moom mooy fóot laabal te diine lislaam dafay xittiwoo laab bi di xittiwoo set ku dul ku nekkul ci diine lislaam nag sa yoon ci laab mais yow sa xittiwoo mooy set rek ndax set nañ sax ndax ponkal mu dem wanag amul ndox mu de wane gannaawam boo demee ci Europe ak réew yu bari boo fa demee seen toilette yi amul ndox ay ay morso rek nga fa fekk yu ñuy jëfandikoo kon kooka waxuma la set defagul ko sax waxuma la bay laab moo diine ji diine set la waaye diine ji diine laab la kon jullit ñi rek ñoo xam set ak laab ñeneen ñu dul ñoom bu ñu xamee set sax xamuñ laab léeg-léeg ñu far ñàkk ñaar yëpp xamuñ laab xamuñ set looloo gën a bëri. moo tax léeg koo ci bëgg dend ak ku ci koo ci dend rek xet ga bëgg laa rey moo tax lislaam dara du moom dara niroowut ak moom kon ñu jàpp ne xéeféer yi dañoo sobewu sobewu ak matière comme yére yi. comme euh, comme lekk gi ñu lekk mbaam xuux di naan sàngara ak ba tax na lépp luñ doon jëfandikoo bu rëccee ki ñoom ñëw ci yow nang ko laabal bala nga koo saña jëfandikoo su ko defee nag jumhuru salaf ak xalaf loolu la ñuy wax ahlul masahib loolu la ñuy wax ne xéeféer jëmm ja nekkul sobeek yaram wa ba bu riisoog moom dem di jàppiwaat ni ko xasnal basiri yi waxee bu la joxee loxo ngay dem di jàppi xaat bu laalee sa yére ngeen joññante ngay dem di kii déedéet sobe xuga mooy li nga xam ne dafa nekk sobe te mu taqoo ci ñoom ci seen jëmm ya loola lañ ci namm ci innamal musrikuuna najasun ak seen pas-pas bu bon biñ fas ak yu mel noona su ko defee nag ñi jàpp ne seen jëmm ya laab na ñi ngi tegtaloo xadiisu a tabaarakallaahu Ah, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom yonent bi dafa moom yonent ci benn ndab tawaddaa min masadatin min masadati mushrikatin wa akala min taamil yahud wa rabata sumaamata bnu athal wa huwa mushrikun bi min sawaaril masjidi ñu jàpp ne yéeféer yi seen jëmm ya duhut sobe yonent bi ci boppam jàpp na ci ndabal yahut jàpp na ci ndabal jigéen goo xam ne bokkaale katam yàlla la lekk na ñamu yahut yi ba alquran ne wa taamu lisna usul kitaab xilul lakum wa taamukum xilul lahum waaye sumaamatu mii nekkoon ab musrik yonent bi xeewoon na ko benn keno ci biir jàkkaam ja kon su fekkoon na jëmmu jaay sobe loolu du xam bi ci tegu tamit yonantu bi leexle na maanaam lekk na jàllar bi ko ak yaay saxaabaam mu lexal leen ab délégation yoo xam ne ay kuffaar lañ ta bam koy def digluwutoon nañ raxas yooyu la ndab yañ lekkee defal na leen ndab gane leen ñi lekk ñoom kufaar ya ak musrikuna yi bañ pare jullit ñi lekkaat ca ndab ya te waxut dañ ko raxasaat ba tey tamit jaabir mooy wax ne hand nañu ak yonent bi xare ñu jëlee ci xare ba ndap ay yo xamni musriku ne ñoko mom ko jari ñi ta ko ji ne nañ ko raxas ak yeneen yi ci aju kon euh, kenn ku ci nek dal ñi eh, ci borom xam-xam yooyu indi nga say argument yu leer naññi ci sobehu ga ndax maana la wala sobehu ga ndax maddi wala matière la kenn ku ci nek andi nga ca say maanaa yu leer naññi yow mi may déglu nag loo ca roy rek jub ndax man xallada aaliman laqiya laaha saliman yàlla ne falaa yaqrabu masjid al xaraami baxda aamihim haada borom xam-xam yi werante ndax jàkkay masjidul xaraam dong lañ leen tere waaye yeneen jàkka yi ci des mën nañ caa dugg loolu borom xam-xam yi dañ cee wuute ataw ah, mom lim gëm dafa ne dañ leen téré masjidul haram dinañ leen téré jàkka yëpp ndax masjidul haram mo leen jox kot seen leer ya timit masjidul haram mo leen ko tëbbu te lii cosaan la moy yonentu yalla Ibrahima bim tabaxé Kaaba gi ba pare graway ba fa dess dafa lajone yalla fuma koy touri sama borom ne ko dajale ko tawan ko gannaaw la dara. ba mu wanee gannaaw yàlla hebal malaaka ya ñi xeno ko tasaare ko ci àdduna bi garaawaay booba fu wu mag daloon balaa àdduna bi tukki rek dañ fa tabaxal yàlla juma fu wu ndaw daloon balaa àdduna bi dañ fa tabaxal yàlla jàkka loolu mooy sekkareeb jàkka yi ak juma yi ñiy santaane seen mihraab yi ñiy dàkk kaabatal musharrafa mi nga xam ne moo leen jox kot kon nag mbir yaa ngoog jàkka yëpp lañ leen tere balañ caa sañ dugg rekk daruuriyatu moo koy waral ndax ad daruuraat tubixul mahduuraat waaye bu dul ngànta du dagan ñi fay dugg waaye masjidul xaraam nag ak masjidul nabawi dañ caa raw ñoom boo demee Makka dafa bokk ci seen luwaay yi xéeféer du dugg ca xurum ja du dugg Makka du dugg al madinatul munawwara loolu loolu lañ gëm ñoom daal xurum laa yus li kaafir an yadxuluhu bi xaalin li zahiril aaya loolu waral imaamu Shafii imaam Ahmad Malik loolu lañ gëm falaw jaa rasul min daaril kufri wal imaanu fil xarami laa yasunu lahu fi duqulihi bal yaxruju ilayhi bi nafsihi mu ne moo tax ku dul ku gëmul yàlla bu yónnee woon tey ab délégation bu gëmul yàlla ñi ñëw war a soxla suñ kilifay jullit ñi mu fekk leen ca xurum kilifa ga mooy génn dem fekk leen ca biti xurum ba ñuy waxtaan la ñuy waxtaan waaye sariya du may ñoom ñuy dugg ca xurum di fa dugg moo tax tey boo demee màkk ba léegi loi boobu sax moo fay dox maa xamul nag. seen buur bu bees bi moom la moom daal mu ngoog rek la yàlla xam doy na gis nga changement yu bëri yafa xew te mu bëri lool yàlla na yàlla dimbale lislaam te dimbale ñooñu lislaam yonentu bi bëgg-bëggam moo doon hijaas gi yëpp muy tefesu Bahrayn nekk ba Saam xéeféer yi génn ko ba jeexal ko tàkk bu fa kenn dugg dafa daan wax ne la uxri jannal yahuda wan nasaara min jasirati al arab xatta la adau illa musliman yonent bi dafa daan wax ne dama bëgg génne génnee yi ak nasaraan yi ci dunu arab bi yëpp muy jasiratul arab muy makkaak madinaak omaanak la wër yooyu yëpp bu fi kenn nekkati ku dul jullit moo tax boo demee ci riwaayatu muslim dafa dénkaane ne axrijul musrikina min jasiratil arab yonent wax na génnee leen musrikina yëpp ci dunu arab yi buñ fi xam benn place waaye tey tabaarakallaahu waxuma la dunu arab yi waaye màkk sax ña nga fa ah, maanaam ci ay taayifaak riyaat ak yeneen dëkk yu mel ni ñoom moom daal mu ngoog rek mu ngoog daal yàlla ñu yàlla dimbale rek mu ngoog moo tax yonent dafa daan wax ci mu woo demee ci hadis mu wax moo ko andi dafa ne ñaari diine yi waruñoo dajee ci jasiiratul arab diine nasaraan yeeg yahuud ak diine lislaam manta ne ñii dajee ci benn place laa yajtamiu diinaani fii jasiratin loolu la yonent bi daan wax hadis bi Muwatta imaamu Malik moo ko andi yonent bi waxaan na tamit ne inna shaytaana qad aysa an yu'badahu almuslimuuna fii jasiratil arab walakin fi tahriishi baynahum imaam muslim moo indi moo indi hadis boobu mu ne saytaane de li am doole naagu nañu jaamu ko topp ko woy gëm ñi topp ko ci dunu arab yi déedéet loolu moom saytaane xam na ne mënta nekkati kon nag lislaam a ngoog ak li ci haju ci innamal musrikuuna najasun mu dugalaale jàkka yëpp lu dul daruriyatu taxaw waxoon naa la jàkk yi benn jàkka rek moo leen jox kot muy masjidul xaraam moo tax kon luñ luñ bañ foofa rek dañ koy continuer di ko bañ ci mbooleem jàkka yi yàlla nag ne bëgg li nekk ci loxol xéeféer yi bu mu tax ngeen xubbi leen seen buntu wa in xiftum aylatan fa sawfa yuxnikum allahu min fadli inshaa wallaay su ngeen ragalee ñàkk ba tax ngeen bañ a dagg relation bi ay waay waay waay man yàlla naa leen xoomalal su ma neexee nag laa koy def su ma neexul nag ma bàyyi leen ci ngeen ñàkk bay bëgg a dee yéen daal ragal leen ma tabama ak seen bopp rek ndax wa man yattaqillaaha yaj'al lahu maxrajan wa yarsuquhu min haythu laa yaxtasibu wa man yatawakkal ala llaahi fa huwa xasbuhu inna allaaha baaliqun inna allaaha baaliqu amrihi qad ja'ala allaahu li kulli shay'in qadaran kon mbir yaa ngóog nañ ci bàyyi xel nañ gëm yàlla ragal yàlla doyloo yàlla dimbanikoo yàlla te yëg ne xaritoog xéeféer yi manta maye dara daw ci seen gannaaw manta maye dara su ko defee yàlla mooy hubbi bunti yërmande yi kum ko tëjal ku ko mën a tijji fi kum ko tijjil ku ko mën a tëj amu fi maa yaftahi llahu linnaasi min rahmatin fala mumsika laha wa maa yumsik fala mursila lahu min baadihi wa huwa al azizu al hakim ko ca fatiri aya 2 yàlla tamit ne li di faggu di ko bay jàpp ne ni may déeréet afaraytum ma tahrusuna antum tasraunahu am nahnu saariuna law saw la jalna xutaaman wallahi fasaltum tafakkahuna li ngeen japp sen tol yi suma nekhon ma def ko muy mbubi du son tara ngeen bay ba sonu taw am taxul ngeen xam gantax kon nak nekut ne nay bay way man yalla may bay yeen dal man ngeen fagu fàggu jëmbat gàncax su taw xotti susi dugal ca waye suma taw tawab saxal taw tawam magal taw tawam ñoral ak najam wa du ngeen ci dara kon bu leen dimbandikoo ti kenen di ma fi bayyi na ngeen dimbandikoo man yalla mi waye gis nga timit wajhu thani ba dafa andi sartane wa in wa in yamsaka allah a bi durrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yamsaka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir lu ko waral mu ne wa huwa fawqa ibadihi wa huwa hakimul khabir seeti ko ci anam aya 17 jëm ba ca aya 18 te timit masjidul haram bi ma len buñ ca dugg ñom ñing len koy tere bis dana jot yeen da ngeen fa dugg mom ko la tadkhulana al masjid al harama insha allahu aminina kon nag loolu baxi len ca xel kenn du yalla nañ ko gëm te doyloo ko nañ ko gëm ko ne fam ñu mëna fété xamul kenn ku ñu fa mën a féetee ku dul moom kon nag des na rek ay lataa'ifu tafsir laa latifatul ula ba mooy yàlla dafa joyal musrikuuna yi ne sobe lañ mu solo ko ci tëgginu masdar najasa la wax loolu nag mu baalaxa la innamal musrikuuna najasun najas jooju masdar la waaye loolu da ko indi def ko muy mu mubaalaga mu ci ñu ne ñoom daal saaru na najaasati mujj nañ sax di jëmmi sobe carrément ah fekk la fa njëkkoon nekk kasaan la mooy innamal musrikuuna kan najasi mais tasbih bi moom gis nga ko waaye yàlla xasaf addaatu tasbih bi jàllar bi ko tamit xasaf wajhu sabahi bi mu mujj nekk tasbihan baliixan kaytu tasbih yëpp bii ci ëpp doole muy tasbihul baliix moom la yàlla def nga xam ne dafa xasaf addaatu ba muy addaatu tasbih bi jàllal bi ko xasaf timit wajhu sabahi ji au lieu que nekkul fa ne innamal musrikuuna kan najasi nangam waaye dafa ne innamal musrikuuna najasun mi ngi mel ni boo ne woon saydun asadun moo ëpp doole téeméeri julli nga ne saydun ka asadin kon kenn du yàlla ci balaaxa téere bi téere lépp la buy wax ci balaaxa dangay ngay moom rek la xam bu waxee ci naxu da foné mom rek la xam bu waxé tiba tabaarakallaahu ci fiq nga foné mom rek la xam bu waxé ci walu wàllu graphi nga foné mom rek la maîtriser bu waxé ci science nonu bu waxé ci médecine nonu motax téré bo waxati dañuy mufatal xam-xam ba ne ki téré la bo xamné da fay wax ci ilmu tibbi bi da fay wax ci ilmu bi da fay wax ci ilmu tafsir bi da fay wax ci ilmu bi da fay wax ci ilmu naxu waaye boo ñëwee ci alquran dootoo waxatee an mu meexu loom ngay wax moom dafa ndar dafa dagale xam yu bëri waaye téere bu waaye mën a taxaw téye ko buñ la laajee mën nga ko préciser ne téereem fiq la téereem naxu la téereem balaaxa la téereem nangam la kon loola rek a ca ne waaye boo xasee téye alquran mënoo wax ne téereem laxu la mënoo wax ne téereem naxu la mënoo wax ne téereem balaaxa la mënoo wax téereem mantiq la mënoo wax téereem usul la mënoo wax ne téereem médecine la moom daal téereem lépp la. kon kenn du alquran kooku ñi bàyyi ci xel yàlla tamit gis nga tere dugg ca jàkka ja mu mu far waxuma jugu dugg waay mun a jege falaa taqare boo waxut falaa yadxuluu de xam nga ne loo jegewut doo ko doo ko doo ca dugg gis nga yàlla ñaareel lu ko ñor bu koy tere fay wax ne bu leen ko jege loo jegewut noo koy mën a defee di nga lekk xalal li jëriñ yi ba mu ko ñoree ci tere ga dafa ne bëgguma ko ko def moo tax wala taqrabu maalal yatiimi gis nga njaalo ba ko tere gi ñoree dafa ne wala taqrabu zina kon nag kenn du yàlla ci waxin yooya lay indi moo tax tamit mu ne falaa yaqrabu masjid al xaraam yi kon gis nga ko looloo waral waaye waxut falaa xulu bu ci tegu tamit mooy lim ko daanee moo lay daane inna laaha alimun hakimun ma ngay junji moom yàlla ne ku xoomal la maanaam wane tamit ne koom-koom ak ñàkk ci loxoom la ne moo koy jox ku ko neex moo koy xañ tamit ku ko neex dem xaritoog borom am am taxuta am dara waaye tamit ñàkk xaritoog borom am am terewuta am dara yàlla moo yore wërsëg yi moo koy xëpp ku ko neex dañ gëm yàlla wakiilu ci moom comme melentaan melentaan yi moo lay fekk nga jël sa tool bi ruuj ko jël sa jiw wi xotti suuf sa def ko ca mu taw nga bay bayaat mu ñor nga góob def kom sàq mu fekk la yow borom kër gi nga toog mu jàll bi ko matt la ba pare dem lekk sa sàq mi wane na way yàllaa ma ko wërsëgal soxna sa dem togg cere ja ba foo ne moo ca ne fa muy togg di mooñ melentaan mi matt ko jàllal bi ku lekk ca cereem ca loo ca man moo tax kon eh, neexal nit ki terewut a am li nga maanaam taxut a am lu dul sa wërsëg ci moom naqaral ko terewut a jot lii sa wërsëg ci moom yàlla mooy santaane kum sant mu war laa jox kooku du sañ a lànkati yàlla du santaane lu ñuy lànk yalla moy xagne kum xagne ki kii bëgg maa ko wax bu mu la jox mëno fexé fexé ba jox la kon nek fi di tapu milliardaire yi di len neexal nek sen gannaaw buñ tisoolee nga ne yarhamukallah nangul len lo nangulul sa bay di daw ki sen gannaaw tane dong nga cay jëlee te du tax manam li nga bëgg nga am ko kon nak yalla yalla defal ñu tawfiq yalla xir ñu ci bopam def ñu dëgg-dëgg julit may ñu mujj gu rafet yalla man nako am nako sañ nako yalla nako yalla def kon boma ma suba ci kartanal yàlla ci waxtu wi ma ñëw ak yow rek continuer sof ak yow li ma sosoon ak yow ci an nidaa u thani wa xamsuna kooku nag mooy yaa ayyuha allazina amanu inna kathira min al ahbaari wa ruhbaani li yaakulu amwaala annaasi bil baatili wa yasudduuna an an an sabilillah wallazina yaknizuna dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah mooy nekk suñ bopp darsu bi incha allahu ëlëk ci waxtu yi yàlla nañu si yàlla yóbbu ànd ak kartan ànd ak sañ-sañ ci yaay wal amuna inna kathiran min al ahbar wa ruhban li yakul na amwaal naasi bil batil wa yasudduna an sabilillahi والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب alim loolu nag suba ci waxtu wi mooy nekk suñ bopp darsu laa ñuy yóbbu ñu ca wasalaam. ginnaaw bi nga seetaane vidéo ba pare fekk abonné ko na nga abonné te bës tuus cloche bi ndax bu ñu dugalee vidéo nga ma di jot notification yi.